di ñaan yàlla subhanahu wa taala boole ñu jëggal tey jii nag maa ngi bëgg a wax lu tuuti rek si ñun sénégambia jëmale ko nag ci autorités yi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo yor booda bi di booda contrôle muy duwaan yi ak policier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw ci yoon yi mu bëgg nag ngeen déggee ma xel wax ji jubluwuñ ci pour lu naqari kenn waaye rek laaxe biir la te yonent bi sallallahu alayhi moo ñu wax ne diine laaxante biir la te ñu gis ne tam ñun Sénégambia ay mbokk lañ yoo xam ne kenn mënu ñoo teqale tubaab bi ñëw rek dugg suñ biir waaye buñ ñu bàyyi woon benn lañuy doon ba faw parce que ñoo bokk lépp ñoo niroo ci lépp te màggal gi weesu nii dafa amoon ñoo xam ne amoon nañ ay problème ci yoon wi te ñooñu la seen bos feeñ parce que ñoom ñoo ko def ci whatsapp wërale ko bokkut ak léegi-léeg nit oo wax la li nga xam ne moom la daj ci yoon wi man nak dama am sañ-sañi wax ci lu mel nonu parce que man kenn mënul ma génné ci Gambie la magee fa la démé school waye Sénégal la judo, suma ñaari rak yi top ci man Sénégal lañ judo suma yaay Sénégalais la suma papa Gambien la te Sénégal la jangé kon amna sañ-sañi wax ci diggante bobu nonu waaw kon ba taxna yi bu bu waru ñoo tok rek noppi di setan parce que man ci suma bop lu mel nonu mas na dal ma gambia di dem bogal ñew ba jëlulong ñu taxawal ma sonal ma fa te la taxoon ñu sonal ma daguñ ko fenn lolu nak may bëgg wax rek pour joxé advice bu gatt rek ci ñi nga xamé né ñu ngi taxaw ci yoon yi nañu bayyi xel te xam ne ñoo ñu jukk pour dem ziyaare yi lu rëy lañ def te ziyaare dëgg-dëgg ziyaare nag mooy ziyaada te nit ki nga xam ne dafa am cofeel jukk jëm ci beneen nit rek yàlla mën na ko cee tabaxal kër ca àjjana waxuma la nag mu jëm ci góori yàlla yonti mu saa mu ngi nettali mu ne dafa am koo xam ne dafa jugoon dem di ziyaare ji benn xaritam mu am benn nit bu mu dajeel mu laaj ko foo jëm mu ne ko dafa am suma benn xarit bu may ziyaare ji mu ne ko ndax dafa am loo xam ne moo nekk seen diggante dafa am business jënd njaay mu nekk seen diggante mu ne ko déedéet dama ko sopp rek te yàlla tax ma di ko ziyaare ji mu ne ko maa lay yëgal ne man malaayka laa bu yàlla yónni pour yëgal la ne yow ak sa xarit boobu noonu tabaxal nañ leen palis ca biir àjjana ngir sopp gi nga xam ne moom ngeen soppante di ziyaare wante kon nag ñooñu buñ jugee pour seeti góori yàlla yooyu yow nga taxaw si yoon pour sa intérêt kese te aman na buñ waxee sax ca sëriñ bañ jëm koo kooka ngay waatee loolu duhul loo xam ne lu rafet la pour ngay teg kooku yenn coono yi luwaa nag luwaa la dëkk buñ tegee luwaa képp kuy dugg ci dëkk boobu war ngaa topp luwaa boobu doone ci sëriñ bi laa jëm rek tax ngay def lu jaarut yoon lu duxul dëgg moom mënta doon dëgg bu ko ñëpp doon def sax du tax mu doon dëgg waaye yow mi taxaw ci yoon wi tamit bul abiw sa uniforme bi ak luwaa bi ngir yëre bi nga sol rek tax ngay sonnal yenn doomi aadama yi loolu duhut loo xam ne lu gën la te loolu rafetut ci sun Sénégambie gi waaw soo gisee màggal jot gàmm bu jotee comme gàmmu bii ñu ngi ciy dëgmal si ñu ngi ci yoon li weesu ci màggal gi weesu na waaye fitna yu bari amoon na ca bu ngeen jëlaat loolu tamit defaat ko ci gàmm gi ñu jëm parce que loolu dafay dafay xajamal diggante bi loolu mën naa ñëw ba indi problème bu mag a mag a mag parce que mun nga koo def tey nga jàll mu am ñu ñëw pare pare xam ne yow li nga lañ daj fii amal nañu ñu daj ko ci yoon wi ñu ñëw doxalee noo xam ne waruñ koo doxalee sax fitna bi ñëw ba yéeg si kaw ba ñaari dëkk yi am problème kon yéen ñi nga xam ne yéen a yore réew yooyu noonu di Gambie ak Sénégal autorités si nekk ci kaw government si jug leen ngeen waxtaanee ko ngeen seet na ngeen di def ci yoon yooyu noonu. su ko defee yoon wi doon yoon woo xamee ne nii dëgg-dëgg lépp lu ci ñi nga xam ne ñoo taxaw ci yoon wi di def fekk ñu teg ko ci yoon mu bañ a indi fitna te itam yéen ñooñu di taxaw ci yoon wi maa ngi leen di waxal ne bàyyi leen seen xel bàyyi leen seen xel bu baax a baax am na ci ñoo xam ne nag léegi-léeg boo wéetoog ñoom da ngay gis danañ takk lu ne parce que xam nañ ne lu ne lañuy dajal ci yoon yooyu waaye léegi-léeg di nga gis nit mu soli sagar nga yaakaar ne nit kese la fekk weesu na foofu kon ku nekk nanga doxal li nga xam ne mooy li la war sa liggéey waaye bàyyi jaay doole bàyyi tooñ te xam ne kuy tooñ yàlla du ko dimbale nañ fonkante respegante joxante cër te xam ne ñun ñëpp njabooti yàlla lañ te ñun ñoo bokk te mbokk gi buñ nangu dara xajamal ko loolu nag mooy lu gàtt li nga xamee ne moom laa amoon pour indil leen ko di ci jéggalu lépp lu ci yàqu rek ngeen xam ne suma xam-xam bu matadi la su rafetee ngeen gërëmee ko yàlla ak yonent bi waaxiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalaam